sañ turu yàlla boobu moo tax ma waxaat leen bismillah ma nuyu président de la conférence des leaders Khalifa Babacar Sall su ko nuyoo nuyu naa leader yëpp nuyu le président Abdoulaye Wade bu Wallu nuyu suñu ñaari yaay yi nga xam ne ay référence lañu assemblée di Adja Aïda Mbodj la Lyon ak Adjaratu Waré Sarr li ma leen di wax mooy li pros di wax Ousmane Sonko li muy wax looluy dëgg Macky xamul lu de force Macky lu dul te ñemewu ko Macky Sall la gën li ma leen di wax mën naa leen cee indil ay preuve man dama def IGTL jaar na Diourbel jaar Bambey di dem Diourbel dem Touba jigéen moo ne ko doo fi jaar jigéen Aminata Tall moo ne ko doo fi jaar Ablaye Wade ne ko xaaral ñu yónnee la hélicoptère parce que bëgguma coow biir Bawol ca jamono jooju fekk na Adja Aïda Mbodj mii dan ko ne ko su Macky Sall jëlee hélico loolu humilier lu ma la dañ may humilier fii ci Bawol damay bàyyi parti ay dem Mbodj ne ko fii ngay jaar ñooñu doon ko buntu xatal démb ñooñu la defal mburoog soow tey xëy suba teel téléphoné ay dem naan ko booy bi ci RFM laa bëgg nga présenté ma ko mu ne ko kooku Ahmed Aïdara la tudd sama doom la may démissionné RFM démissionné mu fekk ko booru Tambacounda muy yelewaan di ma supplier y a que six mois qui nous séparent de la présidentielle Ahmed soo démissionné ma dee yow laa yaakaar ñu mel ni mburoog soow mu may tatafu di ma di ma yelewaan nit kooku tey moo taxaw di segg ay doomu aadama ci presse bi di nga fi wax doo fi wax Macky Sall nag li tax ma ne leen xamul lu dul rapport de force defante man ñaari exemple dong laa leen di jox gis nga liste bii buñ ko bloqué leader yi la neex ak yéen demandez-moi ko pourquoi dama dem suñ dëkk benn vendredi ma toog président El Hadj Malick Gakou téléphoné ma ne may est-ce que ngeen ne sous-préfet bu Sam Notaire nee na liste Khadija Maye Koor ak liste Aminata Kanté rejeté na leen ci local yi ma jël oto ñëw ña nekk Géejawaay ak ñi kalaami ñi kalaami Sénégal yëpp cour d'appel lañ dem ba des ma j'ai mobilisé tout Géejawaay ma dem fekk ko ba ci biir bureau bureau ne ko barke Mouhamad Rasulullah liste yi da nga koy valider par force wala ma taal fii maye koor a ngi ma ne ko xoolal validé je ne vais pas aller à la cour man miinu ma Dakar Guédiawaye rek laa miin par force da koy validé soo ko validé wulee fii ma taal ko tey ma jël sama boo yëpp ñu ñëw wër foofu Ami Kanté di togg ay añ trois jours mu validé ko Macky Sall affecté ko ginnaaw Goudiri boobooy benn ñaar barki Dembo Ndiaye bi ñu rejeté liste Barthélemy Diaz le grand maire est à la direction générale des élections daal di dugg biir ministère intérieur xeex bi mel ni tulleeg male mu ne leen par force te valider eh, eh, eh day lambatu day lambatu te te ñun ñuy def loolu yëpp ëpp ñu Fit Sonko nii ëpp ñu Fit Sonko. s'il vous plaît s'il vous plaît. Eh eh, eh eh eh eh ndigal li jib na mooy dañu koy valider par force. wala ñu gàttandu di Macky Sall fii ñëw ginnaaw suba lay ñëw par force man eh ndi eh man man eh conférence des leaders laa ne je suis signataire Khalifa Sall lañ koy laaj leader la ñun ñëpp ay leader lañ man signataire laa ndigal li maa ko joxe validé par force wala ñu ma ne ma ne wuy ma city citizen fii Macky Sall xamul droit Barthélémy Dias nee na nangu na sama ndigal kon Dakar nangu nañ sama ndigal ma ne ma ne ma ne fii ñun ñoo ko neexee dañoo toog fii ba vingt heures may ma Macky Sall son préfet et son ministre de l'intérieur ne connaissent loolu moo tax waxuñu droit ñu naan ñu dix-neuf heures droit lañ ñu jox demuñ fenn bougé wuñ ne yaa ko gën a doon un régime badoole pire Macky muy créer ay emploi comme seen expliqué eh, ma ni Macky Sall muy créer ay emploi muy lor ay doomu aadama ñu ngi ko njëkkee ci président Ousmane yor ay inspecteur des impôts ku mel ni Mame Boye ku mel eh, eh. man ma ne nga yor ay inspecteur des impôts lu mel ni Mame Boye Diao lu mel ni Habib Niang lu mel ni euh, euh, Ben Saloum mi demoon Kaolack ay inspecteur ay euh, Cheikh Ba Cheikh Ba lu mel ni Amadou Ba waaye yow nga yor inspecteur des impôts yooyu ñuy politique jënd sa carte de membre waa ji ne du ma jënd sa carte de membre nga ne ko dama lay mais lan mooy ndey ndax Ousmane Sonko ne ko dootoo fi liggéey ça c'est quoi ça. yemu ca capitaine Touré def enquête enquête boo xam ne ñëpp le capitaine Touré le capitaine Touré le capitaine def enquête ñëpp xam ne lépp ay complot la ay sos la pour ngay éliminer. yow ci làmb ji koo bëggul bëreel nga ne doo bëreeg moom nga xëy signé ne dàq wa gendarmerie Macky Sall moomul réew mi yemoo fa Macky Sall nga infiltré la presse je vais benn petit mot à mes collègues la presse au Sénégal comme la justice elles sont indépendantes c'est aux acteurs maintenant de prendre leur indépendance man fi ma nekkoon di fa liggéey waa ji mouvement la yor mu taxaw nee ne gëm sa bopp ma taxaw nee ne yeewi te dama gagné dama gagné maa gagné maa gagné maa yëkkati rek Macky Sall ma ci kaw dóor Macky Sall Macky Sall def ay pexe ànd ak Babacar Diagne moomu nga xam ni le sale boulot lay def pendant 40 ans naa fekkam boobu ne génnee leen Ahmed Aïdara ci ëttu presse Babacar Diagne aussi soutenir ay naa fekk jàppale ko ñu def lu ñu mel ñuy segg ñi ak lii dugg na fi gën a fi soyez digne fii yàlla moo fi ne ñu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax vive Yewwi vive la validation de notre liste merci beaucoup Ahmed